salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk internet yu nga xamante ni yéen a taamul seen bopp seen émission bi nga xamante ni fi ne jotaayu xam-xam lay doon saa su ne mbégte la ñuy am tey dellu si ci beneen numéro seet si suñu yaay seet si suñu xarit macha allah waaye seet si itam suñu mbokku taalibe ñu gën ko xam ci Mama Dior Ngom mu Sëriñ Fàllu moom lañ seet si tey bëgg a waxtaanee waat moom lenn ci xam-xam ngir jaglelaat ko askanu Sénégal rawatina suñu mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp saa su ne di seetaan émission bi ni ñuy def rek mooy dañu koy dalal nuyoog moom daal di xuus ci waxtaan wi kon Mama Dior Ngom euh, euh, ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye di la dalalaat euh, ci biir jotaay bi nga xam ne jotaayu xam-xam la suñu borom dogal am lum la ci tëralee ñu bëggoon waxtaanee ci cër boobu nga xam ne suñu borom tëralee na ko macha allah rabbi. waaw kay Dieng Talla maa ngi lay nuyu la ñuy jàmm. amiin yaa rabbi di la sargal di la tatagal yaa ak eh, ñi nga xam ne ñoo fi teew. macha allah di lijjanti ci loolu du seet ci tamit li nga xam ne moo nekk ci découvrir daal Mama Diongom. Mm-hmm. ndax Mama Diongom ñu bari xam nañ ko. Mm-hmm. dégg-dégg. Mm-hmm. am na nit ñu yàlla may ñuy doxantu di fi ñëw wala ñu ñëw foofu eh, maakan may liggéeyee. waaye tey yàlla def na yow yaa ngi ñëw pour jéem a gën yaatal daal. Mhm. gën a gëstu gën a xam kan mooy maman Dior Ngom. ak maman Dior mhm. fu mu jaar fu mu jëlee li nga xam ne door bi ko yàlla jox ak li muy mhm. liggéey. fu mu jaar ba si fii tamit loolu moo tax nga ñëw fi sant naa ci gërëm la di sant sëñ Fallou moom wax moom. macha allah bu baax nga xam ne Dior Ngom bu sëñ Fallou ñëpp xam nañ ko. ci Safir FM xam nañ ko fépp xam nañ ko ci Parcelles Assainies waaw macha allah di la nuyu nag di la xaar loo ma laaj ci kàttanu yàlla di nuyu waa parcelle gépp di nuyu sama waa kër jërëjëf Talla Sylla jërëjëf Ngom maman Dior Ngom mu sëñ Fallou wax mhm. yàlla euh, du tey lañ ko xam mhm. waaye li ñu xam ci moom xamoon ci moom ba tey mu ne ci ci loolu lañ bëgg a waxtaane tey ji ak moom ngir ñi ko xamul mën ko xam waaye ñi ko xamoon te gëjoon koo gis ndax ci biir waxtaan bi di ngeen dégg incha allah rabbi ndax dafa jékki-jékki woon moom it daal di dugg ci àll bi xaw ma fu mu demoon danaa ci ñëw moom <laughs> waaye buñ koy buñ koy buñ koy tàmbale rek mm-hmm. man ni tey jii maman Dior Ngom fan mooy cosaan moom ak tey jii Dior lii nga xam ne suñu borom dénk na ko ko naka la dikkee ci moom mm-hmm. macha allah jërëjëf sëñ Talla mm-hmm. man nag sama cosaan mooy dëkk bu ñuy wax Ndiamsine Ndiamsine Sessène Sessène nekk ci arrondissement bu Lamba Bambey. Mhm. département bu Bambey. région de Diourbel. Mhm. Euh, nekk nag tamit ci diggante Mbaba Garas ak Kër Samba. ndeysaan. foofu laa dëkk. Mhm. waaw sama cosaan foofu la. sama papa ñëpp xam ko. macha allah moom nag. mosul yëngu ci li waaye ci ma yar mhm. muy ab jigéenam di ba di sama bàjjan mhm. moo nekk na si seetkat mhm. moo nekkoon di ñaan moo nekkoon di faj ay doomu ndeyam laa jël man ndeysaan waaw loolu la ndem si naa juddoo fa laa yaroo waaye li ma jàngee kër Samba Kane dégg nga ñëw nag see si xombal man na xombal tamit macha allah. Mhm. sama lépp fa la nekk macha allah waaw loolu la macha allah mhm. toorkaal ajaratu Dior wax nga ko léegi cosaan wi ku ko ne dégg na li nga wax mu leer nañ waaye dafa mel ni kon tey buñ la déggee bu baax bàjjen bi nga xamante ni mooy moo la yar mhm. maanaam moo def lii ci yow wala moo la ko jàngal loolu ciy nettali loolu noonu waaw sama bàjjen nag moo sama papa ay doomu ndey lañu dafa mën a seet moom bu la boo dama sànni ñëw këram. Mhm. da ngay taxaw fee rek mu wax lépp nekk ci yow. kooku suuf kooku moo ma yor ci néegam laa yoroo. Mhm. mi ngi ci kër gi sama yaay ci kër gi may dem di waxtaan ci moom ñu koy rang muy dem di ñëw waaye sama bàpp moom. masul sax moom nit euh, tubaab la mhm. ak ah, teel la jàng jàng jàng jàng tubaab mais ma it jàngloon na ma defloon na ma lépp waaye lii daal doobu nekk ci man la waaye sama bàjjen nag moo ko doon def ma nekk ci yaroo juddoo ci kanam moom yaroo ci màgg ci mm-hmm. ku ñuy wax ab sa mbay mu ma ko joor mbay mu door nga mu ma tudde eh, ndey ak baaj mu yaroo ci kër ga ba màgg moom boobu jamono yi cent francs lay seete waaye lu ma la wax téere la mm-hmm. ma jàng ko ci moom loolu am na loo xam ne yàlla sama boroom def na ko ci man mm-hmm. waaw boo xam ne tam da ngay looy bëgg rek boo ko yootoo mhm. suñu borom day ñëw ja bu fekkee dal nga caa am dara wala nga dimbali ci doomu aadama yi mhm. dalay yombalal am loo xam ne eh, ak jagle la mhm. am loo xam ne tamit jàng la mais jàng am na mais jagle tamit am na leer na man ne jagle yàlla may na ko seet man ma maa jox ko alhamdulilah macha allah yal dool li jagle moom wax nga ko eh, cëru suñu borom moom def moo gën a moo gën a wér lépp foofu ni yàlla cëralee doomu aadama waaw daanaka moo gën a wér lépp am na solo macha allah rabbi ñu xam ma maa jox ngoom ci seet macha allah ni nga ko waxee newoo ñee nga ci kenn. waaye xam naa ni daal euh, euh, est-ce que tey Dior Ngom ba ma xamoon ca jamono yooya nga xam ni nit da daan réer dara jooni bu ko Dior Ngom yëgee ne ki ko jël diw la tudd. Mm-hmm. est-ce que Dior mi ngi dundu loolu tey ba tey. moom tey la wàllu gën a ay loolu am naa ci ndam ba tàyyi waaye dem naa ba am ci sama ay kayit. Mm-hmm. ci tudd mm-hmm. ku feebar. ma ne am fitu ne la jiw jiw mii jiw moo ko jàpp dara du ko dindi ku ñu sàcc wallaahi yàlla war na sëñ Fall ma xool ne la diw du ma nekk naan ku gàtte ku ko ñuul ku ko xees ku ko weex dama bu ñu demee ba seet ñëw dëgg-dëgg dama naan diw moo ko jëf hmm. ma amoon ci nag problème boobu maa ngi dëkk unité 24 hmm. am xaalis bu ñu jël yàlla xam na ko hmm. néeg ba ay xale yu góor kese ñoo fa lu ma juróom-ñaari xale yu góor ñu sàcc fa am ku wàcc di sangu bàyyi fa cent am benn commerçant ma ñoom ñëpp ñu ngi fi ñu daal di yëkkati 200000 bàyyi fa 300000 diggante bi muy sangoog ñu néeg ba la ca nekk ma na juróom-ñaari xal ma sita ci benn tur ñu ñëw guddi 23h wallaay li ma lay wax nii anecdote bi fekk ma tëdd ñu ne ma ñu ne leen dem leen ci ma Dior Ngom boo demee dina wax ma daal ne leen dem leen jënd ma ñetti saabu li ba indil ma. ñu ñëw ma daal ne leen ba suba ñu ay te ñoo kii waaye dañoo jaaxle ne ci kër gi dugg na fii këru yaasa man leen bu subaa bu ñëwee bu soobee euh, li may leen bàyyi ci saabu yi ba set wax ma turu ki jël sa xaalis ñu ñëw ma ne leen kër ga day fekk na xale bu góor avant mu ñëw woote na Saalum ay Saalum Saalum lañ ñu tegtal ko ma ne leen xaalis bi nag ki ko jël moom mooy kilifa néeg ba loolu rek doy na. moo leen indi ci néeg moo jël néegam ngeen ñëw mu fekk si ko ngeen di bokk di fay maanaam man leen turu kilifa la am loolu doyut ñu ne ma ah mère Dior turu dafa bari kii ñu jël xaalisam xaadim la tudd kii diw la tudd man leen xaalis bi ko jël Ousseynou la tudd Ousseynou. tam muy dëgg loolee nag ba nga xamee ne ñëw na dafa ñëw daal daanu ab jël di mbokku ci miir yi seen waa kër yëpp daw ñëw kër gi fees del ca laa ca jóge nag. dem waaw ñu dem dem dem dem nag lu ñu topp ko ba loolu am. ma jox leen garab goo xam ne garab sàcc boo xam ne ku ko def sax ci fu ñu la ko delloosi. te garab googu yaa moom ba tey moom. tey fii toj. léegi nag daal di def ko eh, dugg na fii génn fi ma daal di garab googu suba xorondom lañ koy boole. maa ngi leen léegi daal bu ngeen ma fay ma ma fay ne sàcc ji jiw la. waaye avant ñuy toog sa ay ñaari fan ñett dem na ne ay la yoon moo ndax moom moo jël xaalis ndax coow lu bari rek. léegi nag dinaa dem police ñu defal ñu ne ma dem commissaire na foog nga def sa ay tey. Mm-hmm. parce que moo nan ngaa rek. Mm-hmm. mën ngaa am problème te. ak yi sa ci wàllu lii. Mm-hmm. dafa xaw a doy war. surtout. moo tax fi ne nii bu yàlla defee jàmm ku ñëw fii sa sàcc. pour sàcc ku ñu sàcc. boo ñëwee bu soobee yàlla bu ma neexee man la du ma ko gisee ba man ko. Mhm. te te gis ko dinaa la diw moo ko jël du ma ci dara ndax su ma demee tam am naa waraabal la. Ah, lu leer ngay wax am ngay kayit ku ñu feebar seytaane la. Mhm. ñu dem fu nekk ñëw. bu ma neexee te nga xam ne da nga ne seet rek laa bëgg ma ñaan lu bu fen mhm. ma seet wax la ni mu demee yëpp wax la ne lii ak lii. te boo ko ne am nga loo koy saafara am naa ma koy saafara léegi la moo tax seetkat yëpp mel bu ma xoolee seetkat yi yëpp moom dañuy gis nit ki di ko ko wax rek waaye duñ ko wax solution. wala amul sens da am yàlla sunu borom may na ci lu koy lu koy saafara ndax euh, li la koy won mooy ànd yow di la ci lu koy saafara. Mhm. li la koy won lenn rek la. Mhm. moo la naan diw mii toog lii ak lii may problème defal ko lii ak lii wala ñaan la ko ci lii ak lii wala na sarax man nag samay sarax laa wóolu nag. Mhm. laal foofu. <laughs> nee na samay sarax laa wóolu. sarax sarax yi jom ñëpp xam nañu boo nangoo def sarax rek. bu dee fe euh, problème yi nga am téeméer la. Mhm. juróom benn fukki la daal di wàcc ñeent fukki nga xeex ak moom. maanaam kon sarax moom buñ koy xool fi mu toll nii moo gën a ci soxla doomu aadama moom fi mu man de man moo gën a gaaw soxla te samay client ñëpp xam nañu loolu. ay nekk ba bitim réew woo ma ne mama joor seetal sa ma saar seet sànni benn benn mun na nekk ci audio mun na nekk ci sax mun na nekk ci seet international mun na nekk ci wax la nga dem wax ma rek yow lan mooy sarax si. Mhm. ma wax la nga def say mbokk dem say mbokk ñu defal la wala nga def sa kër. waaye li ci gën a baax mooy bu ñu waxee nag ñu naan jamono seetkat léeg-léeg su mais sarax kii ko wax génne mm-hmm. ah mm-hmm. xam niñ koy defee mm-hmm. ndax am na wax xam boo ko defee mën nañ ko def mu yàqu la nga doon wut non seulement eh, doo ko am wala mu gën a yàq ndax rab moom dafa gaaw ma dafa gaaw a génn te lii laaj sarax moom wàllu rawaan la ak wàllu tuur wàllu jinne soo leen joxee ñu lekk tey boo tegee fi ñetti ndagu ceebu jën wala ñetti ndagu ceebu yàq te loolu lañu bëgg mhm. ndax sarax mën nga ko te fekk yow la ngay def bëgguñu ko kon sarax ba kan koy defal dafa xool ba xam ne kii léegi léegi lii moo war a fekk safaaram saa so fay soxla yow bu nee na yow la eh, bàyyi seen sa mhm. bàyyi kii taala mhm. nga bëgg ceebu jën lool wala ceebu yàpp xiif ay fani fani fa ba xam ne yaa ngi yëngal kër gi ñu ne kon a tey tey ñoo jóg taali saxa taali mi fi mu ne sarabaan bu defee dara xamal ne mi ngi yëngal soxla mi ngi pour am na lu mu soxla luñ ko war a defar wala siiñ boo xam ne fajal na la fenn bëgg nga fay ko ok moom rawaan lu mu la fajal rek moom du la ko may da lay bëgg nga fay ko ci sarax wala nga fay ko ci xaalis ñoom dafa yor ay xàmb ay damaa yor ay tuur damaa yor ay tuur la yor naa ay tuur yor naa tamit loo xam ne du question sax dem di tuur wala dem di sang lu ma yàlla may dara boo ñëwee wax ko yàlla woon ma ko baraat bépp dugg ci biir am lu am lu ko saafara dinaa dem tamit dëkk ba mhm. fa ma dëkk mhm. samay nijaay mhm. ñoom ay ay ay ay ay ay la man sama yaay ngi nii ci biir saraxu la. waaw waa waa Mali la sama papa moo di séeréer. séeréer. waaw man noonu la da nga koo laale ci ñaari wet. ñaari côté su ko defee nag dañ may côté ñaaxar dama fay dem wut samay bagage wut sama yëpp sama côté kër papa. topp tool yëpp ñëw. boole ak li ma yàlla may te damay jàng alxuraan damay bind alxuraan damay wér damay lépp ndax alxuraan ji ndax a mujjee hmm. mais joor ngam tey ji man joor hmm. ko hmm. moo tax ma ñëw du joor ngam bu ma woo fay ma wala joor ngam bu ma woo non dama laa fekk nga liggéey jee ba am lu ma xam ci joor ngam bëgg loolu askan wi xam ko ci joor ngam dëgg la bokk na ci wàllu ay rab jigéen duñ naan dafa am raba cor jëkkëru raba faru raba Dior mhm. Ngom am ci pexe mais man foofu li ma fa bëgg a laaj toujours maman Dior ndax xam naa ne maîtriser nga ko mooy ndax rab day dëkk ci nit wala dafay dem ñëw sànni ko ngewal wala dafay nu nu rab di def doomu aadama ba di ko ma koy yàqal waaw rab moom dafa bari façon comme ni nit ñu bari ay façon mhm. nit ñii dañuy gaaw a bàyyi dañuy mer gaaw a bàyyi mhm. ñii dañuy gaaw a xaddi ñii buñ jàppee duñu bax tant que amuñu lañu bëgg. maanaam ci dëgg la nit ñi ni ñuy léegi nag rab am na ñoo xam ne moom dangay xool sa tane xam ne kii rab bi day ñëw di dem. ok di ñëw dëkk fa saa yu amee temps ñu dugg ci biir dara ma metti ndigg li wala mu metti dënn bi wala mu metti bopp bi wala mu tàngal xol bi. yooyu mooy mandarga yi nga xam ne kii di ñëw di dem yi nga ne mhm. waaw moom day ñëw di dem moom. ok su ko defee bu jàppee fii boo liggéey mu sa yaram diis. Mhm. nga ne ah man de fan sama yaram dafa diis day ñëw nag bu la yëngalee noonu dem. bëgg na nga dem gëstu sa bopp ba xam lan moo lay métti. Mhm. su ko defee mu dem déglu la. ok comprendre mhm. am ñoo xam ne day ñëw dëkk fa rek nag. luy waral loolu. yow nga def ñu def loo nga def loo xam ne ñoom war nañ laa am na ku ñu lay liggéey soit am na ñoo xam ne saytaane njàpp ndala mu mu wallu la rab day wallu day jóge réew a réew wallu nitam. Hmm? waaw def def def intervention bu gaaw génn loolu ba pare. li toog nag ci sa biir yaram nag bëgg nag yow nga gëstu ko reyal ko xar ndaa nag. kon moom daal lu mu la defal da nga koy fay. da nga koy fay. Hmm. te am ñoo yoo xam dañuy seetaan am na ñoo xam seen rab dañuy seetaan am na xam ne seen rab moom duñu seetaan moom. kon xanaa ñi nga xam ne dañuy moom rab war dëkk ci ñoom. waaw rab ba day rab ba tey ñoo dëkk ci ñoom dem bay crise ñoom loolu moom affaire dina la sax. ok crise moom foo ko fekk ñaare. Mhm. day laaj dina ndax dina moom day fàtte. Mhm. moom bu jàppee bu pare mu ñoo jàpp ba pare fàtte ne am na ku mu jàpp du gaaw a du gaaw a retenir du gaaw a dellu si waat ci ci kooku pour mu bàyyi loolu moo tax dina day fàtte rab na moom lu mu jàpp du ko bàyyi du ko fàtte hmm. te boo ñaanee day bàyyi soo demee tuuru sax ci guy na ko lii ak lii ak lii wax ak moom da koy jëli hmm. day bàyyi te day may alal bu ne rab bu baax hmm. nga boo ko defaree tey bii maanaam tey boo la fay comme taala yow taala si la yow ñu def loolu ne la ah man de tey ceebu jën nga toog ba ñu pare ubbool bi teg dikk muy yaasa da ngay découragé. la mm-hmm. nga war a réagir boo ko yi rek jaram noonu la mel. nit mën na dem rey sax xar te bëgg ko. Mm-hmm. mu xëpp ci kaan. Ah, nit mu na rey waaw parce a rey ko am na ñoo xam ne nii tey. Mm-hmm. te nit itam du benn façon rek lay def. mën nga def bi weer bi bee ñëw ñu sensé bëgg la nen. ok. rab da nga koy topp rek xam ko mais doo ko canaliser benn place ne lii lay bëgg lii lay bëgg nii lay mel nii lay mel. non macha allah jërëjëf ajaratu ngor jor ngoom ngeen di dégg noonu mu Serigne Fallou dégg ngeen leeral bi muy leeral mm-hmm. tam te lii ma koy laaj nii dafa am loo xam ne dama fekkee moo tax ma sañ ko koo laaj mm-hmm. du luñ ma nettali wala lu ma dégg rek déedéet ndax jamono yi ñu toll moom riirum Serigne ak paj ak ñaan dafa lëmbee adduna ba nga xamante ni luñ ciy defal fuñ koy defal ku ne day doon lu wér loo xamante ni fi duñ ci am dara luñ tëj moo tax mm-hmm. kon li nga xam ne fekkee naa ko wala nettali nañ ma ko ma dund ko sañ naa koo ñëw laajte ko kii nga xam ne moo ko dund moo waral jotaay bii nii tey bokk na ci jor ngoom li mu xam ci bitim réew moo ëpp li mu xam ci biir réew ba tax na joor boobu sénégalais yi mënuñu la ko wax léegi lu war a loolu waaw gën ngeen naa gis macha allah damay dem international di dem di ñëw mm-hmm. sous région yi dem bitim réew dëkku tubaab bi bu ma dee demutut ñu ngi ma yónni di ma woo mm-hmm. parce que li may liggéey ak ñoom moo ëpp ah, am na ñoo xam da nga gën a jekku seen i mbir. dama jekku seen i mbir que nekk fii ah, ñëpp sax dëgg sax waaye nag da jot gi xam nga kenn doog mënu lépp. Mm-hmm. fu nekk mën na ko kenn mënu ko. ko de wax loolu rek la waaye ñoom wax dëgg yàlla maa ngi leen di sant ñoom ñëpp waa diaspora leen gërëm di leen ñaanal. Mhm. xam ne tamit nag maa ngi fi macha allah. Mhm. waaye incha allah heure bu ma soxlaa rek ngi ci yoon. man ah, ndax xam nga li tax diaspora bi seetal ku tukki. Mhm. dafa yomb ak ñaanal ko. seetal ku tukki dafa dafa ne ndax nit bu ko liggéey jàppee wala maa may jafe-jafe bu bu jéggee frontière rek loolu day des sérieux waaye Dior li ngay wax nii. maa la wax nii doy na waar de. maa la wax tey bu ñu fay tey saala sëñ bi lu mu diis diis Sénégal nga xam ne rek topp na la fii wala yow yaa ngi am ay ay jafe-jafe yaakaar muy tas ñu lay sànni ay misil liggéey yooyu wala nga feebar laa def dara la mu yàqal la sa xaalis loo am mu tas. Mhm. boo jëlee fii avion ba dem génn tey frontière u Gambie kese. xoolal mhm. xaaj ba wàññeeku xaaj ba wàññeeku mais lu tax secret bi sëriñ si duñ ko wax ak ak ak. waaw xam nañu ko. ah. te li ma wax nga wax de <laughs> ma ne ko wax nga wax de. Ah, moom la moo tax dégg frontière dem. Hmm. dafa dafa dafa boo ko defee rek ñoom ñuy dem la dañuy daal du ñu xam sax li tax affaire bi xaw a waa baax a baax internet yi nekk bitim réew ñi ma ci xam ñu ne ci ay coono ak jafe-jafe jafe bu ñu la déggee lii ngay wax di nga am. maa la ko wax dañoo ñibbi si fii lañ jëm si de. waaw waaw te tamit nag seet ak sarax ñàkk kayit man damaa ci jox dat moom. këyit bu la bàjjoo di liggéey liggéey bu jaxasoo place boo xam ne tam dafa xaw da nga cee xaw am xel ñaar boo xam ne dem na bay jeex te jeexul ngay xel ñaar yooyu la may wooy maire Dior xoolal ma sama contrat bi léegi mu jeex ma seet ne dinañ la jëlañ la embauché nga ma la sax ñu embauché la te loolu dañ ciy joxe wax de délai maire Dior délai nga wax de maa la ko wax man ñi ma xam xa ah, baax na nañu xool ba ci kanam rek <laughs> man da xam nga ne dañu maa gis bi wala ngeen maa dégg loolu de doy na waar fii dama maa jor ndoom fi ne dene dene dene si kayit ay visa ki passeport ki yëf ni yooyu moom bul ay visa ay passeport ay dem ay ñëw ñi ma dégg ñëpp xam nañu ko léegi sa kër ga lan la say mbiru bopp la wala ci alxuraan ji ngay bindal sa bopp dinaa bind mais dinaa def sarax daal man sama yëpp base bi sarax man daal base bi sarax la waaw wax dëgg xam naa ne moom buñ ma génneloo sarax fii ndax man damay seet seet yu bari du bii rek laay seet mhm. damay seet ci téere damay seet ci ndox mhm. damay seet ci seetu mhm. ñu am nañu ko xam am na yu ñuy wax xam ne pitax bi moom comme mooy solo mooy base bi. Mhm. tubarkalla te gaaw na. Mhm. te lu ma la wax itam dara du ko. te jigéen ñëpp fi ne petaaw la nuy woon moom moo ci jaaxal. Mm, waaw petaaw dafa dafa garaaw. gannaaw moom day nettali démb nettali barki démb nettali tey nettali suba kay nag fi mu ne wax dëgg yàlla te man bëgguma ay seet jël longo lu ay ay ay ay ay ay yu seet nga sama boroom kër dañoo am jafe-jafe na daal di saafara. yow daal seet bi moom solution bi nga ci nga ci nga ci waaw. te fi ne ku la woo ci soxlaam fi mu toll nii moom nga seetal ko boo gisee problème am fi mu ne solution bi yow am nga ko fi mu toll nii. man sax sama mbokku sa kër nañ ma ne man seet naa ci moom tubaarkàlla ma. nangul nañ ma ko loolu koo dégg fi ne dama doon xaar nga sa bopp rek. maman Dior Ngom ñi may ñii seet te xam ne macha allah soli kër la bi. Hmm. dox nañ ma de ndeysaan. kon sa kër dafa am ñoo xam du du du ñaay soli non am na ñoo xam ne ñu solitaire la. kon xanaa loolu waral defante te loolu xam ne wërsëgu jaam yàlla koy yàlla yàlla yemalul comme ni te boo rafetee la sa xol rek te daal li nga war a am danga koy am allah ko leen man nag du ma fen ci seet li ma la seet laay wax képp te seet nag dama dégg toujours ñu naan dafa araam te araamut te tam araamut dafa ñu ko sib mhm. te sib boobu am na yeneen musique ñu ngi koy def. sib te day defar. sib bu ñuy def day defar day defar say. day ñëw ko feebar dinaa yàlla fen wuy defar ak fen wuy yàq. dëgg bu yàq. ah kon de fi ne gannaaw mën naa faj saafara fi ne nii moom. day faj saafara mais mais Dior man bëggoon naa xam fi ne sa tukki bu mujj bi fan nga demoon ak lu la yóbbu woon parce que man daal tukki yu bëri yi laa bëgg lijjanti man daal tukki yu bëri yi te sëriñ si demuñu sëriñ si ñoom fi ne li bëgg yëpp mooy nañ xëy toog nit ñi ñëw wër leen ah, ñu leen ñaanal mais Dior Ngom fi ne sax damay dem moom ndax ñoo may ñoo may soxla ñoo may yóbbu lépp ñoo koy toppatoo bu ma toogee ne di lim sax damay damay damay damay jum. ndax loolu laa xam moo tax bu mujj bi daal laa bëgg xam man fan nga ci dem. waaw moom bu moom dama naa Suisse. ay ay nga sama benn kii yóbbu ma waaw damay bañ wax ndax xam nga comme nañu def ay secret. ndeysaan mën nañ koo gis fii mu waaw sama benn nit yóbbu ma daal boo xam ne mm-hmm. xamante woon nañu. Mm-hmm. macha allah. mën ta woon nañu dem naa ñëw naa sant yàlla lépp ngi dox mhm. waaw alhamdulilah eh, yàlla nañ ci dolli ay tukki yu bare bare bare bare bare waaye tukki bu ci nekk itam yàlla na dëppoo tamit ak li nga xam ne mooy saafara soxnaas jaamu yàlla parce mhm, defe naa ni mhm. loolu mooy seen bëgg-bëgg mooy seen yéene yi tamit defe naa ni askan wi tam loolu loolu la ñu bëgg macha dafa am temps yi la passé kenn koo xam dafa ñëw boobu maa ngi door a ñëw mu feebar ba sonn ñëw bi muy ñëw fii dafa raam daanaka fekk euh, ñu tegtal ma ko tegtal ko mu ñëw mu jógee yow fu soriwul dara daal di ñëw ne ma dañ maa boole ak yow ma xool ko def suñu borom wan ma la koy saafara. est-ce que wala ma ne ko euh, waa baax na yow suba na fi ñëw seetal ko wax ko ay sarax ci saasi mun a meer joor koy xaaral génne sarax yi ma ne ko boo demee def lii ay sarax lii def ko béréb sàngam lii def ko béréb sàngam faj bi nag nangam laa koy def ñaan bi mu bëgg a joxe ma ne ko di bàyyi xam nga jox naa sa sarax yow téer ba nga ba yàlla def jàmm ba suba bu ma jox la garab ba na gën si ginnaaw suba bàkk suñu fàllu bàkk mu dem ma daal dugg ci biir topp toppatoo sama mbir sama xa sama doom yaa ngi toog. Mhm. ma ne ko defal léegi toggal ma garab gi ak bii ay litre litre gis nga ko mu lay. Mhm. ñu togg ko xale bu góor bu dëggal si keroog ñëw na ba dem ma ne ko soo demee continuer naan lii rek. fanaanee naan loolu bu bët set wax na ma téeméeri jàngoro juróom fukk ak ay problème yu jeex mu ne mu wax moom fekk maa ngi dem am fu ma génn mu ne ma mère Dior man de man de sant naa dem ma naa mu ne ma dama demoon feebar dem ba. saa bëri mënatul gis day fulub ma ne ko ah waaw ma ne ko loolu doo ko téléphone bàyyi ba ñu war. wallaay. wér na loolu li ma ci am du jeex. Mhm. te moom li ko jàppoon xam naa ko te dama ko wax ba mu lii ak lii mool ko. wér na mi ngi nii bu ma neexante la numéro téléphone ma ngi nii. <laughs> di laaxi tegal foofu sa xam naa mais Mama Dior. Hmm. Euh, gars yi dañ may topp ma topp si waat ndax butéel bii def ñebe ji taxaw sama kanam nii bëgg naa ñu waxtaan ci waaye bëgg naa après ci beneen jotaay bii di ñëw la mu bëgg ñu waxtaanee ko mooy fii nga daane nii nii nii nii parce askan wi dañ koo soxla. Mm-hmm. la mooy doon message bi nga xam ne yaa ngi koy yóbbante askan wi ak kaddu yu mujj ci jotaay bi ndax waxtu wi tënk nañu. Mm-hmm. macha allah daal leen di yóbbante daal eh, maman Diop daal. Mm-hmm. ñu ngi nuyu ñëpp di leen ñaanal. di ñaanal waa réew mi yëpp yëpp yëpp jàmm ak salaam. ñuy dem di ñaan bi ndax suuf bu sëntee dañ koo jël. wallaahi ndeysaan. suuf. nee na maam daan wax suq ak lu jaaw. suq gudd suq ak alal wala suq ak bidaaw rek suq ak gàllaaj gàllaaj yu fees de mhm. alal mbaa bidaaw rek te tey mag <laughs> waaw affaire faj bi na xam nga comme moom bis bi dafa kii bi xaw a gaaw mhm. eh, heure bi mhm. il faut ñu def dinañ fa laal ci wàllu jabet xam naa du fa xaj xaju fi dañ koy tënk beneen yoon rek dañ ko incha allah affaire tension am ci garab surtout ku war a kuy sëy ni tamit yàlla def nga xaw a mel ne lu yeex a am wala ku mus sa am waaw loolu yàlla suñu borom am na lu ñu ci may waaw liggéey tamit mu xaw a dëgër wala ngay wut tukki mu bañ. Mhm. <laughs> kooku moom yàlla may na ma <laughs> man garanti gi ma délai bee ma def ay ak bayre boo xam ne tamit ndax nit ba mu bayre mu def. man de xam war naa am bayre man mi yow ah yow am nga bayre nag. dëgg <laughs> bayre bu ñu boole lu ñu aar. tubarkalla ak bayre bu ànd ak aar loolu yëpp macha allah yàlla def na ko fi alhamdulilah waaw yooyu moom dañ koy découvrir ci jotaay yi di ñëw moom bu soobee yàlla ñu gën a yaatalaat bu soobee yàlla bu soobee yàlla bu soobee yu mujj yi kon waaw dina ñaanal yàlla rek di ñaan di ñaan sama client yi nag tamit mm-hmm. Sénégal bii mm-hmm. ak ak ak sous yi ak li mm-hmm. ko wër ak diaspora bi ñëpp mboolem ñoo xam ne ñooy client yi Mama Dior Ngom ko sopp ko wóolu ko yàlla na yàlla def ci ñoom lu raw seen yàlla yàlla def lu raw seen jot ci man ndeysaan lu ma leen def yàlla yàlla def ndam lu ma leen ñaan yàlla yàlla def fuloo maa leen di ñaanal mm-hmm. di ñaan nag ñu découvrir Mama Dior Ngom mm-hmm. euh, seet si ko parcelle mm-hmm. maa ngi fii unité 21 allah macha allah seet si ko ci loo xam ne lu seet la ak ñaan macha allah waaw jërëjëf Mama Dior Ngom mu sëriñ Fallou mu sëriñ Fallou Mbacke sama sëriñ jërëjëf euh, askan bi nga xamante ni tam ñooy teewlu émission bi saa su ne euh, gan gu bees guñ leen indil du bees ci réew mi waaye bees la xëy na ci émission bi ba tax na ñu indi ko pour ngeen découvrir ko kon mosu leen ko xam li mu fay la fay sax lu mu yéen yéen nañ ko ñuy nettaliwaat ci suñu beneen jotaay bii di ñëw incha allahu rabi taala mm-hmm. nga xam ne moo am sañ mën koy def yàlla na ñëpp seen i yitte seen i soxla ak seen bëgg ci dara gi Seydina Muhammad alayhi salaatu xamante ne teru ko ñu ngi koy séntu nii fas ñaan sans borom ñu ci ci jàmm ak salaam incha allahu rabi ci bii di jotaay yu xam-xam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa